Desport TV la passion des sports tey nag de daal di ñëw Thiès stadium bu Thiès tey nag dañuy waxtaanee li Coupe du Sénégal ak Monte D1 Qui de en finale la dalle de dem ku ci ñi ak Gourni. ñi dinañ waxtaanee li nga xamante ne moom ci euh, euh, Coupe du Sénégal ak tamit D1 bi seen finale bi. raaya di ci laare ci côté de góor ñi duk waaye tamit ci côté de jigéen ñi di ci laale li nga xamante ne moom mooy ISEC dinañ ci daal di waxtaanee ku ci mel ni coach yi dinañ ko laaj nan la ñuy préparer final bi ki nga xamante ne tamit moom mooy seen capitaine yi dinañ ci waxtaan ak ñoom ak joueurs yi nan la ñuy waajalee seen final yi topp leen ma lépp du leen rëcc fii nii ci DS Sports coach maa lay nuyu. maa ngi leen di fay di rafetlu seen teewaay fii nii. li jëpp doon ñaan daal dinay am muy raay mu daal di euh, euh, jouer li nga xamante ne moom mooy finalu D2 bi contre ISEC raay nag daal di woon a yàgg lool ci euh, ci ci D2 bi ren bu yàlla daal di dogal ngeen daal di fi ngeen daal di dem final nan ngay préparer final bi. waaw alhamdulilah di rafetlu tamit seen teewaay di leen dalal fii nga xam ne mooy suñu terrain d'entraînement de Stade Lat Dior fi nga xam ne fa la ñuy recevoir suñu match officiel bi. waaw comme ni ñu ko amee ni ñu ko xamee yàggoon na lool ci deuxième division bi. ba pare boo xoolee tamit li ko waraloon yëpp mooy booy saa ñu daan am bac dañuy dem Dakar bu ñu demee dakaar si club bu Dakar yi fa la ñuy dem jouer donc moo leen di gën a jege que ñuy def navette di jëw di Thiès di jouer si donc si bëri dañu doon resté foofu boo xoolee même ren jii nii sax am nañu nañ huit départ si huit départ yëpp yoo xoolee tamit ñoom dañoo am bac daal di dem jouer ji ñii dañoo dem Ndar ñii orienté leen Dakar Gaston UCAD euh, kon donc foofu la ñuy dem jouer donc suñu borom dogal nag ñu doon si xare ba léegi ndax daaw boo xoolee deuxième lañ jëloon si championnat D2 bi si kanamu UGB. parce que UGB moo ñu gënoon pare tamit si si aspect bépp donc ren dañoo amoon équipe yoo xamante ni ñu si bëri tamit mosu ñoo jouer championnat mosu ñoo sax am licence mais si liggéey ba pare xale yi nangoon déglu tamit. conseil yeeg yooyu noonu suñu borom jappalé ñu ba nga xamné ren ñu ngi joué suñu final D2 bi nga xamné ne accès nañ première division si lo xamanté ni ray depuis 1996 nekkul won première division ba ci 2026 ñu ngi sogo yégaat donc si match bobu nak ñu ngi koy waajal bu baax comme ñu daan waajale lépp daanaka ci dernière semaine bi lañ nek donc bo xolé bañu ñu commencé yàgg na ndax depuis décembre ñu ngi commencé kon donc dekk na durée bo xamanté ni yàgg na donc final bi nag ñu ngi koy wajj bon xalé tamit suri nañ tamit pare nañ ci côté yépp kon nak pare nañ sax pour jël sax coupe bi indi ko Thiès incha allah. Euh, un mot clé pour euh, équipe bi nga xamante ne moom ngay dajal muy ISEC xam nga ISEC tey ku ko tuddu tudd handball. dëgg la ISEC mm, daaw géej moom moo jël euh, moom moo jël championnat national bi daaw mu am bëri woon ay départ mu daal di wàcc deuxième division. donc nekk na équipe boo xamante ne miin na D1 ndax récemment moom moo fa nekkoon ba pare am nañ même ossature bi ñu ngi fa. donc nek nañ suñu xam te ñoo ñu ëpp expérience ci première division bi parce que xalé yi ñu am yëpp ñëpp bo xolé ñett ñoo ci mos jouer première division parce que joué ñu ko sax US Rail donc ci yenn club lañ ko joué woon. donc expérience bobu non ñu am bon dañuy fexé nax leen ci ba gagné leen inshallah euh équipe bi esprit bi euh, joueurs yi nan la def vu que ne mosuñoo euh, final wala mosuñu jouer championnat dëgg la si début bi metti wonna trop parce que dañ doon xaw a crispé tuuti bon c'était est très normal parce que amna na si ñoo xamante ne sax mosuñu woon sax am licence handball mhm. donc ren moo nekkoon seen première fois ñu doga am licence ren la doga xam lan moy présentation nga dem di woné si licence ak affaire yoy non. donc esprit de groupe bi tamit alhamdulilah resté na bon le même parce que ñoom ñëpp boo xoolee presque ben tranche d'âge bi la donc lool nak moo ñu si gën a jàppale te ñi ngi mbalagante seen biir di fo di kaf di ré donc lool bu ci amé rek

donc nous ñoom ñoo jël championnat Sénégal saison bi passé saison bi ñu jógee nous muy jeex donc si si loolu tamit nous ñi tamit amoon une chance daal di dem def benn sortie parce que Tivaouane dafa amoon benn benn benn benn tournoi petite catégorie pour xam te daf ko organisé si week-end bi mu amoon benn équipe pour xam te ne daaw moom moo coupe du Sénégal moom mooy Diaye Sar handball club pour xam te ne dafa jógee Saint-Louis donc pratiquement ben nous defee bañ leen approché dañ leena laaju ndax sen xalé rek ngi wala mag ñi am ñu si ñew ñu xamal ni carrément euh, ossature équipe bi donc presque moitié bi yépp ñew nañ ndax ñom comme que instant bi ñu période vacances dañu ñew and ak xale parce que ñom ay jigéen lañ donc mag ñi ñoom ñooy accompagner xalé yi donc demoon nañ foofu nonu jeu ji ak ñom ñu déplacé dem ba Tivaouane joué ak ñom bañ demee nak ñom ñoo ñu gagné woon points d'écart mais su lolu gis na satisfaction su ñom parce que Diadji sa bi nga xamné daw mo mo jël coupe du Sénégal ren mu ñew ci championnat mu jël troisième donc mën naa dem gagner gagné ma 3 points d'écart donc am naa satisfaction ci jour Si ci sama jour yi donc mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy gën a préparé wu chaque fois bu ñu amee benn match d'entraînement dañ koy joué amoon nañ fi benn équipe bu nekk fii à Diamaguène mooy Diamaguène handball club des fois dañ leen di approché demain ñu ngi war a joué ay xale yoo xam te ñu ngi entraîné Singap bien vrai que euh, rivalité bi du doon benn par rapport ak Diadji Sarr mais au moins ñu dem ñu xam ni am nañ benn adversaire bu nekk suñu kanam donc lépp lu ñuy préparé tamit mën nañ ko si continuité boobu rek la nekk pour préparer wu ak ñoom góor ñi tamit même chose bon ASFA comme moom moo fi nekk nii te moom moo jël championnat bi daaw moom moo final tamit coupe du Sénégal donc ren dañ siy profité chaque fois ñoom chaque deux jours boo xoolee ñu ngi joué ak ñoom chaque deux jours ñu ngi joué ak ñoom donc ñu ngi ñuy may ren bien vrai que ñoom soxla nañ ko tamit mais ñun tamit soxla nañ Ah, capitaine ñu gis ne raay daal dina yàgg lool li nga xamante ne moom mooy D2 ren ngeen daal di koy finaalu lan ngeen koy nan ngeen di préparer final bi. waaw d'accord loolu ça a été trop difficile parce que saison bi gudd na trop si ñun en plus raay féminine gëj naa yéeg des première division loolu moo tax nag metti woon na trop mais géré nañ bi ak si final. nan ngeen di waajalee li nga xamante ne moom mooy final bi. final bi nag ñu koy waaj yokk entraînement déjà ñun ba ñu duggee ba ñu ñëwee premier jour rek lañ commencé objectif mooy atteindre mooy suñu objectif c'était ñu dem premier yéeg première division jouer finale bi aussi loolu donc préparation boobu yàgg na suñu. esprit équipe bi euh, nan nan ngeen koy jàngatee gis nañ yéen ak ISEC yéen yéen daal di euh, tase li nga xamante ne moom mooy final ISEC mu nekkoon na dafa wàccoon ren la daal di yéegaat esprit équipe bi waaw. Euh, ISEC dese nañ leen xam noonu sax dese nañ leen xam parce que mosuñoo joué ak ñoom benn match de ce ren la ñuy dogal waaye dañoo jàpp ne ñun. préparé nañ ko daal ku ñu ku buñ ñëwee taxaw incha allah fulla la fayda ak jom rek ñu gagné leen incha allah jërëjëf. merci beaucoup capitaine. ñu ngi fii nii nag ak euh, coach Soray Alpha Sow lay daal di wuyoo moom nag muy daal di joué li nga xamante ne moom mooy finale coupe du Sénégal contre Duc mu nekkoon nag ñoom ñaar daal di woon nañu laalante Duc nag daal di woon ko dóor fii nii moom nag mu fekk ko Dakar daal di gagné ki nga xamante ne moom mooy Duc ñoom ñaar ñu daal di tasewaat li nga xamante ne moom mooy finale bi coach nan ngay euh, waajalee finale salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ñuy seeraat ñëpp di nuyu tamit yéen waa télé bi di ñëw fii di leen remercier bon final bi ñoo koy pare ci manière yëpp physique tactique ak mental ak psychologique ñoo ngi koy pare final bi incha allah. lan mooy euh, point fort bi. équipe bi mooy euh, raay famille sooy seet benn kër lañ rey ñëpp famille la à part man mu ci dëkk fu sori jàmm li ñëpp benn benn dëkk muy HLM loolu mooy point fort bi fa la ñuy ndékkee fa ñëpp ñoo bokk benn kër bu ñu dëkk kon kon raay famille la loolu mooy suñu point fort deuxième point fort moom mooy bon euh, équipe bi sooy seet euh, ñu bëri jël nañ coupe du Sénégal jël nañ championnat man mii rek euh, équipe bi ñu jël nii muy ASFA jël naa fa

motivation bi gën naa yokk parce que tey waa euh, autorité Thiès waa presque bon naa wax ni euh, quatre-vingt ci jàpp si kon ñu toog loolu euh, préparation ko gën naa yokk pare entraînement yi gën naa yokk sa lii amuñu ko woon salle bi ñu am nii amuñu ko woon ren ren heureusement ñoo ngi ci salle bi di entraîné sa loolu dañuy may sa salle la ñuy dañuy may tuuti force boo xam ne suñu dem final bi ak doole lañ fay demee kon mën nañoo jàpp ne final bi daal dinay yem lépp li ci bëggoon à cent pour cent pour cent mën naa lépp am na mais kon des na.

Euh, ñi fi nekkoon ñëpp fi nekkoon à part course bi moo fi jugee mën ma ñëw course bi rek moo fi jugee mën kon ñun ñu benn départ soo seet année bu ñu amee départ rek euh, duñ dem final sa année bu ñëpp ñëwaatee dañuy dem final kon handball bi moo ngi fii Thiès moo ngi fii Thiès kon moom rek ñi nekk ñi nekk xam ñoo ngi extérieur muy ñi nekk euh, Dakar yeneen région nañ ñëw Thiès xam ne handball bi Thiès a ko yor doomu Thiès yi daal di ñibbisi daal ñibbisi nañ doomu Thiès yëpp lañ bëgg man déwén damaa bëgg su ma yortee équipe bi doomu Thiès yëpp ñibbisi jouer si waay waa raay ñëw jouer si raay ndax ndax loolu ndax tey gagné sa sa dëkk dara gën koo neex gagné sa dëkk ñëw ñëpp xam ne sa sa dëkk koo gagné loolu mu gën a neex ñu gis ne raay heure buy final ci jafe-jafe la koy jëlee day fekk équipe nekk ci jafe-jafe mu ñëw ko ndax boo xoolee 2023 équipe bi quart de finale daal di woon yem waaw 2022 euh, euh, bi ñu jël bi jël final chaque année li nga wax noonu am na jafe-jafe la ñuy jouer fii raay am na am na année 2016 six euh, huit jours lañ amoon jël final coupe Sénégal deux mille vingt deux bi ñu jëlee jël coupe du Sénégal maa ngi fi woon. Euh, mën naa wax ni quatorze jours la ñu amoon. quatorze jours à quinze jours daaw dañuy regroupé daaw ñu lekk dañuy dem marché ba ñëw euh, même chose mais booy góorgóorlu nañ ba jël final ren tamit même chose ren euh, mën naa troisième jour on nañ dix sept marches troisième journée lañ ko jël regroupé match journaliste yëpp dañuy ñëw g 17 heures du ñu añ suñu ñëwee tamit même chose mais dañuy xam ne dañu ñu ñëw bëgg quoi ndax ñu ñëw bëgg dara waa amour bi moo fa bëgg bi moo fa bi. Euh, Rail euh, daal di dem demaat final mu nekk deux équipes Rail ak deux équipes yi nga xamante ne daal dinay dem final yëpp est-ce que nekkul ne euh, liggéey bi nga xamante ne yéen coach yi yéen nañ koy def ci biir équipe bi boo xoolee ak jigéen ñi ñoo bokk même waaw liggéey bi bon liggéey bi mën naa wax ne comme jigéen mooy koso. Mm-hmm. man maay coach góor ñi mais. tey liggéey bi mën naa wax ne koso même su fa nekkul moom entraîné góor ñi même su fa moom nekkul may entraîné fii kon ñu liggéey boobu ñun ñun dañ koo tàmm depuis mën na mën naa wax ni Euh, yàgg na ndax ndax tàggat nañ ci ay course ay course Thiès bëri na course trop an bol surtout Bouba Cissé moom moo yor moom mooy yor petite catégorie bii moo ñu jàppale ci yenn yenn liggéey ak yéen di waxtaan ak ñun ak course Ahmed Sidibé Ahmed Sidibé koo xam jël na lépp Sénégal jël na lépp Sénégal ba loolu sens boobu la ñu am ñun pour liggéey bi day yombut ñun coach ba tey ñu daal di ñëw xam naa ne duñ la bàyyi euh, bala ngaa dem ñu gis ne euh, yaa ngi def ay match amical ci euh, ku ci mel ne équipe bi nga xamante ne moo nekk ni suñu ginnaaw di jouer ak sa équipe bi muy ASFA moom tamit war a dem préparer ji fële ca Maroc ñu gis ne yàgg na fi tuuti ndax gis naa ne lii l'autre jour tamit yéen a ngi doon match tey ma ñëwaat fekkaat leen fi. waaw te soo seet ASFA mooy raay mën naa ne ASFA mooy raay man mi bi may nekk ASFA nekk capitaine Koso maa ñëw ASFA. ak yeneen jours yoo xam ne maa ngi jox ñëw asfa ñëw la bi mu ñëw seeraat dama leen ne woowaat asfa benn la sooy seet yëpp benn équipe ñaari équipe benn la famille lañ sa ñu man mi def naa 17 ans asfa ñibbi ñëw ñibbi si waat raay su ba mu ñëwaatee raay benn année la joué woowaat koso woowaat Ismaïla woowaat yeneen joueurs yi ñëpp ñu ñëw ñu raay kon raay ak Alassane famille la kenn mu leen te séparé. waaw pourquoi ngeen préparé di jouer ak moom. waaw Aspa ndax dañuy ñoom ñoom fi mu euh, yi ñoom la arrangé ah, dañu dañuy préparé Coupe d'Afrique ñun préparé Coupe d'Afrique ñun dañuy ñun final la ñuy préparé benn euh, euh, war a jouer kon ñoom affaire bi ñoom la ñoom la ñoom la ñoom la arrangé sa ñun ku ñu war a dañuy ñëw c'est seulement Aspa Aspa bon mën naa ne li ma wax rek Aspa ak Raay benn famille la ndax sooy seet course course course asfa muy Mamadou Senghor sama man man fekk na ma armée sama sama booy la sama raq la sama lépp la papa moo ñu yoroon course ñoo koy ñoo ngi koy ñu ñu tamit euh, di ko jaalewaat bu baax a baax ndax euh, moo doon adjoint course international wàcc woon liggéey Maroc ñoo ngi koy jaalewaat bu baax a baax di félicité waa asfa bu baax ngir ñaanal leen tamit suñ demee indi coupe loolu lañ bëgg moo lan ngay wax population thiessoise waaw di euh, remercier ñëpp di ñaaxaat ñëpp di xam ni benn match moo ñu muy final muy jigéen comme góor jigéen ñi dañuy def

waaw dalal fii ci stade Lat Dior. Euh, Cheikh Ndoye nan ngeen di préparer li nga xamante ne moom mooy euh, final bi. waaw final bi ñoo ngi koy pare bu baax waaw dañoo ci te entraînement yi. waaw di ko préparer daal de comme ni mu waree. nan la esprit équipe bi daal di def. waaw waaw suude. vraiment équipe bi moom suude suude nañu bu baax a baax yàgg nañoo ne final euh, te xam na dañu koy préparer waaw dañoo ngi ci loolu waaw. ne équipe bi euh, bi nga xamante ne moom moo daal di woon gagné euh, coupe du Sénégal mhm. euh, équipe boobu lañ fi daal di fekkaat ci tête bi rek moo xaw a changé tuuti muy coach bi. Mhm. kon mën nañoo jàpp ne équipe bi daal dina huilé. loolu noonu waaw vraiment équipe bi huilé coach bi rek damay changé comme ni ko waxee. te te te mën naa ne deux finales yi ñu passé yëpp équipe bi maanaam moom moo ko dem ko wax kon nag maanaam ñu pare ci côté bépp bépp allah. final bi daal dañu ko wér. xanaa ngeen pour daal di gagné hmm. ko fay fekk hmm. hmm. surtout surtout loolu Duc ñëw fi gagné ñu ñu dem fekk ko Dakar ah, ko foofu dix points Dakar kon nag mais final moom de benn match la. final moom li nga yaakaar sax mën nga ñëw de bañ a loolu. kon nag moo tax teew daal dañoo koy préparé bu baax a baax daa xam ne du du doon moom marche bu yomb ko wax. lan mooy clé équipe bi. waaw suude booloo di nekk benn raay gëm. tey nag dañu dal di woon ñëw seeti ki nga xamante moom mooy raay waaye bi yoon nag ñu ngi ko di seeti ci handball bi mu nekk deux équipes yoo xamante en garçon et en dañoo daal di finaalu muy am fële ca Diamniadio lay amee muy arena le octobre lay am équipe bi nag

fële ca Dakar daal ko fay gagné différence 10 points mu nekk final boo xamante ne final bu neex lay doon ci côté de jigéen ñi nag raay dina ci laale ISEC neen nañu nag daal di wuñu xam bu baax a baax équipe bu ISEC bi waaye préparé nañu préparation bi war ci ci final boobu kii di raay nag jigéen ñi daal di woon nañu yàgg lool ci D2 bi. waaye bi yoon nag daal dinañu finaalu ISEC nag daal daal di woon wàcc li nga xamante ne moom mooy D2 bi mais ren daal daal di yéeg jël poulam P ki nga xamante ne moom mooy raay nag daal di jël poulam tamit P ñu daal di tase li nga xamante ne moom mooy en finale